salaamaaleykum wa waa mbooloo mi ñu ngi nii ñëpp ci turu sëñ Mor waaw ñu amaat ay gendeeku ak i fàttali yu ndaw ab tënk rek bi ñuy def ci wàllu koor gi ak it yoo xam ne dañ koy jëfandikoo te léego-léeg du demee noonu ay njuumte yoo xam ne ñu bari sama classe yi niñ koy doxale ci koor gi bari ci indi ay jafe-jafe coono te demeew noonu loolu nag bokk na ci wàllu ndox surtout ni ñuy naanee ñun ni ñuy def dangay ngay gis ku dog rek naan lu bare bare wala muy xëdd suy xëdd dem jël potom ndox naan ko <laughs> eh, waaye loolu day indi jafe-jafe rek maanaa naan lu yem lu ndaw moo gën fuuf nga naan potu ndox foofu nga xëddee noonu ndax loolu soo ko defee it da lay yóbbee ci gaaw a mar ndax daa tax rein yi liñ doon def roñoo yooyu ñu gën koo def te ndox moomu ci saasi moom la koy gaaw génne moom lëggee mooy loolu bu ndox mi bëree rek mu gaaw def ko li mu ko def fexe ba génne ko liñ ci soxla ñuy jël ko liñ ci soxla ñu génne ko ci biti loolu nag soo ko seetloo toujours soo naanee fotum ndox naan lu bari ci fajar gi noonu sooy tëdd laata tuuti rek wala soo toggee tuuti rek da ngay dem commencé tuur ndox lu bare bare bare te su fekkoon ne tuur ndox moomu day am ci sax tuur ndaw rek déedéet waaye day mujj mboolem daanaka li fi nekkoon ci ndox génn wàll gépp da nga koy génne su boobaa nag loolu dana tax léegi mar wu métti song la laata jant bi so moo tax foofu ñuy xëddee moom naan fi ndox mu bari eh, jëriñul dara ci li ma bëgg a wax bokk nekkul ëppul ngëneel mos ko fi rek moo ci gën li nag mooy lekk-lekk yi nga xam ne day am ndox yu tooy surtout fruits yi heure boobu nga am sa pomme jëfandikoo kooku baax na fi trop ndax gis nga pomme boobu li may ndaw ndaw ak ndoxam suusu moo ëpp doole fu potu ndox boo xam ne danga koy naan wala lu mel ne xaal surtout xaali melon ji xaal bu xeeñ boobu xaal bu ndaw bu neex boobu mën nga tracé ci wala lu mel ne ki papaye waaw yooyu yépp nga xam ne dañu am ndox wala lu mel ne ki poire ngoog yooyu nga xam ne dañu am ndox waaw fruit yooyu nga xam ne dañu ànd ndox yooyu yu baax la lool ñoo gën fuuf fajar gi noonu nga di ko jëfandikoo ba ci ay doomu tàndarama sax ndax ni ñuy téye dañu am ferñeent yoo xam ne dañuy téye ndox ci yaram te soo ko jëfandikoo dana la dimbale ba maru sot métti wi nga mënoon dana mënoon jànkuwante ci bëccëg gi dootoo ko jànkuwante kon loolu bokk na ci yi nga xam ne ñu ngi koy fàttaliwaat di ko digalaat ñi nga xam ne tey ñu ngi woor ñu moytu naan ndox mu bari ci fajar gi sama classe gi yaakaar ne liñ waroon a bëccëg gépp ñu naan ko foofu wallaay soo ko defee laata huit heures neuf heures mboolem loo naanoon ak la ci desoon yëpp lay génn kon foofu la jigéen mos tuuti rek tuuti tuuti te jëfandikoo yi nii lekk sa benn pomme wala sa poire wala lu hal. xaal wala yu mel noonu xaal yi façon xaal ba mën a doon benn dog nga jëfandikoo ndax loolu day téye da koy téye sa yaram da koy soxla da koy aajoo day am farñeent ci laxasu yoo xam da koy téye ba dina la aaral mar maru métti yi nga xam ne da nga koy jànkuwante ci bëccëg gi ba tey bokk na ci yi nga xam ne dañ koy def te gënul mooy dog rek dóor potu ndox mu sedd guy surtout ndox mu sedd jafe-jafe yu bari da koy ndax seere yi ngay gis yu bari loolu da koy waral eh, ndax ndox mu sedd moomu day tax li ngay lek du gawa res day tax it bir bi cramp cramp ay cramp ci bouti di mbakh gi ba tax na ñu mel ni ñu waro na liggé do ñu ko liggé ndax ndox mu sedd moomu dañ ko teb dal ci dal ci sen ko ak tàngoor yu yendoo noonu ba tax na moom itam fofu li fi den mooy mos ndox surtout mu tang nak laal fi ndox mu tàng comme meew boole ko tàndarama tuuti tàndarama jëfandiku ko naan parce que loolu mën na dindi mar wi ndax ndox mi nekku ne mooy dindi mar wi waaw xëy na da cee bokk rek waaye naan gu bëri gi moom du ko dindi feesal biir ba mu fees dell loolu taxul mu dañ ndax da nga gis ko ko def ba tax mu ngi mar kon foofu fi nga dogee li gën mooy bañal laal ndox mu sedd mi te laal ndox mu tàng tuuti moo xam café wala yu mel noonu yi ñuy dogee noonu at ataay ñu koy def yu yem waxuma nag suñ ataay yu day waar yi moom ëpp nay def café it café gu foor ba jéggi dayot ëpp nay def dangay ndox mu yem surtout meew daal baax na ci wala duute yooyu ñuy jëfandikoo boole ko tuuti tàndarma soo xaaree ba ca kanam ba nga xam ne jëfandikoo nga boo boo door a naan suba booy naan lu sedd mën nga naan lu sedd du yem waaw doo ci am benn jafe-jafe waaye bu du loolu moom gis nga so or gi bu dikk koor gi bu ñu bëri dañuy seere te yooyu yëpp yu koy gën a def mooy yi ñuy lekk foofu ak ndox mu sedd moomu ñuy naan te day yokk aw mar rek ñetteel bi it bokk na ci yi gën a doy waar it ñi di ko jëfandikoo surtout yi ñuy saaf loolu di war nañ di ko moytu ñam yi ñuy saaf waaw lakk surtout ganaar yi gis nga ñun bu ñoom ñi ciy jëfandikoo ganaar wala ñi ciy jëfandikoo yàpp yi dañ koy lakk lakki noo xam ne gënul surtout nag nga nga ndëggu ci nag gaaw foofu fi nga dogee noonu nga di ci lekk loolu moom jafe-jafe yu garaaw moo koy indi surtout fi yenn xeet tawat yu bari da koy indi ak it seere bi da koy indi waaw ba ci gis nga yenn xeeti pataay yi da nga gis ñoo xam ne sax dañuy waru de yokk seen yaram di yokk te dara dafa ko lu mooy ni ñuy lekkee yenn xeeti acide yooyu mooy ndox yu forox géex yu forox yooyu gannaaw boo dogee toujours nga di ko yëg façon yooyu da koy indi kon yooyu itam bokk na ci njuumte yi nga xam ne day dañ koy jëfandikoo ci koor loolu dinañ koy moytu ndax day yokk ay jafe-jafe rek hmm, kon li gënoon ba tey mooy bu dee même bu dee yàpp it ñu togg ko toggin woo xam ne du laal diw lu bari gis nga ni togg yi dëpp wér-gi-yaram ñoom dañu togg yàpp bam ñor ñu door a jël diw gi wis ko ci yëngal rek teg ñoom noonu lañu ñuy jëfandikoo waaye gis ni ñun diw googu ñu koy lakk di ko saaf moom anasana allah kenn mënu ci mucc waaye daal bokk na ci ñi nga xam ne ko gënoon a mën a moytu moo gën rawatina na ci koor gi bokk na ci it nga xam ne dañ koy gën a jëfandikoo it mooy yu saf suukar yi nag yu saf suukar yi bu ëpp fofu ñuy dogee gis nga ko dañuy lu ne lañuy def jaxas jaxas yu kenn xamul waaw yooyu it dog rek dal ci doxut waaw ndax day tax graisse gu bari moy li la wax da nga gis mu ni ñoo xane koor yokkute rek leen andi te koor gi lim waroon gëna def mooy wàññi diw def ya wér giram bo gisee ñi wa tax lu tax koor naan baax na ci yaram yépp muy diw googu muy wàññi ci yaram ak fër googu mooy pataagu jigi day googu cholestérol googu di lor te yooyu su fekkee day jëfandikoo yu saf sukar yooyu da ko yokk day tax mu gën a bëri trop graisse gi ci yaramam gën a bëri pataa boobu cholestérol bi gën a yéeg te kon su boobaa day mel ni jumla ba la ñuy tudd naan soo moo woor leen ndax yàlla ngeen wér ndax wér am loola day mujj soppeeku leneen te yooyu yëpp dara def ko lu may ñi ñuy jëfandikoo ci ni ñuy lekkee kon loolu it warees na ko moytu yu saf saf saf yu suukar yooyu daal nga xam ne dog rek daal ci moom nañ koy moytu ndax yooyu day indi yeneen jafe-jafe yoo xam ne demeewul noonu manees na koy jëfandikoo ci bu demee ba ci kanam bu lekkee bokk na ci yi nga xam ne it ñu bëri duñ koy faral di laal te mu baax ci loolu mooy li ma waxoon fure yooyu ñàkk koy jëfandikoo moom. ëpp nay def ndax li tax mooy fruit yi dafa am vitamine yu bare bëri yoo xam ne euh, yaram wi da koy ajoo ci weeru koor te da koy dimbali ci mu mën a am mm, yaram wi mu war a mën a am bu fekkoon mu nekk koo xam ne dafa pata pata boobu wàññeeku ci moom bu doon koo xam ne dafa am graisse graisse xaw wàññeeku ci moom waaye am na xeeti dundin yoo xam ne su koy dundee te du laal fruit yooyu loolu day yokk lool waaw day mujj koor gi day mujj lim loon jur safaan bi lay mujj def ci moom kon loolu itam war nañu génne ko bu baax ndax dina dimbale nit ba tey bokk na ci yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo te it gënul mooy saf-safal yi benn gar yeeg yu wex yooyu yu saf-saf yooyu xorom yi yooyu moom moom it waxoon naa ko ci gannaaw nañ koy moytu lool ci togg yi surtout toggi koor yi moom ak lu mën a xew waaye toggi koor yi moom xorom seeg wex-wex yooyu ak lépp lu ko laal nañ ko moytu ndax loolu day tax eh, yaram wi di gën a ñàkk xorom mooy perte xorom su kon perte ndox ndox moom mu amoon day tax nit ki fu mu toll mu yëg mar surtout bëccëg gi du am benn jàmm day tax xolam bi di fëgg doxin woo xam ne jaaduwul ndax su manqué ndox rek waaw da gis xolam bi def noo xam ne tëf-tëf jooju tax gaaw a sonn yeeg bu yëngatoo tuuti boo doxee tuuti boo defee tuuti dootoo man dara te yooyu yi koy gën a sabab bokk na ci yu forox yi ñuy jëfandikoo yu wex yi waaw ñam yi ñuy def vinaigre bu jiggi dayo bi wex wexal sanaat bi nga vinaigre ko ba nga xam ne jiggi dayo bu dee yàpp bi it noonu waaw yooyu day indi jafe-jafe rek wala xorom si xorom soo xam ne xorom ko xoromee loo xam ne loolu day waxoon naa ko ne ne xorom bokk na ci yi nga xam ne ñoo daq sàcc ndox lañ wax ci yaram te yooyu guddi gi mën na ko bañ a yëg waaye su wooree rek su boobaa su mën naa dem ba ci bëccëg gi muy yëg mario noo xam ne dara dafa ko lu may xorom su jéggi dayoo ak wex wexal yooyu nga xam ne tey moom lañ defoon ci lekk kon yooyu ñu togg ñoom itam soxna yi yooyu nañ ko moytu nuñ gënoon a mën a gën a lewetalee waaw mu gën a lewet daal moo gën ci wér-gi-yaram moo gën ci kii woor ba tax na yenn xeeti jafe-jafe yu bare bare dutu ko yëg kon loolu itam bokk na ci yi nga xam ne dañu koy takk ñi bokk na ci naan ndox lu bari naan bi waxoon naa ko ni ñuy naanee da ngay naan tuuti tuuti tuuti man nga naan gis nga fiñ dogee ba fi cinq heures bi jotee yàlla xam ne li nga bëggoon a naan yëpp mën nga ko fee naan waaye doo ko naan wenn wayaas ndax soo ko naanee wenn wayaas it li ma waxoon ci saa si la ko gaaw roño yi ci lañ koy gaaw génnee ko ci biti du am benn njëriñ waaye tuuti tuuti nga koy def tuuti tuuti bu ko sa xel dajale nga dem góox tuuti naan yem loolu souvent sa yaram dana ko téye ba fenn fu fi ndox mi war a yegg dina fa yegg ba tax na dana des ci yaram bi bu lu ci gën a bëri du génn ba tax dina la téye ci wàllu maroo te boo ko defulit ñi gën a bëri li ñuy naan dog rek naan ba nga xam ne seen biir fees na dootuñ mën a lekk waaw sa biir dootuñ mën a lekk te su boobaa it mooy ñi nga xam ne tey li ñuy def laataa koor gi jeex ñu yàkkamte mu jeex lool ndax sonn gi ñuy sonn ak feebal néew doole gi ñuy néew doole ndax duñ lekk comme duñ lekk topp ndox mi naan rek da ngay mujj mujj ñu jeex jeexaay boo xam ne wala ñu sonn sonn boo xam ne naanin woowu ñuy naan ñu ci bëri naan boobu moo leen koy def kon loolu it ëpp na war na njuumte la yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ñi naan ñi woor war nañuy moytu naanin boobu maanaam toujours booy naan da ngay naan lu yem naan lu yem naan lu yem naan lu mën nga koy tegale nag waaw trente par une heure de temps bu ne wala deux heures trente minutes nga naan trente une heure de temps bu ne naan une heure de temps bu ne noonu soo ko defee ndox mi dina àgg fi mu war a àgg ci sa yaram ba fu ne cër ba mu ci war a am mu téye ko téyin woo xam ne loolu mën na koy garder ba bëccëg gi yëpp loolu du génn bu baax du gaaw génn waaye soo ko defee wenn voyage noonu rek ci saa si la lépp di génn te buy génn day génn waaye la cere sax yëpp dana am loo xam ne sax waruloon a génn te dina génn ndax jël bu bari bi nga jël ci ndox mi lu bari noonu te loolu dana indi jafe-jafe yu bare bari ci wàllu koor gi ba tax borom bis bu ne mu yaakaar ne suba lañuy kori te loolu dara yóbbeeku ko lu may ndox ma muy jëfandikoo kon loolu itam ay mbir la yoo xam ne ñu ngi ciy woor ñu ngi koy jëfandikoo te muy indi ay jafe-jafe ñu noon ñu fàttaliku ko rek xam naa ne fàttewuleen ko sax waaye nag fàttali fàttali moom day jëriñ ñu fàttaliwaat ko rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh